mobilisation la la gars yi doon toppee comme ñëpp dem nañ nee na boo balee yaa ngi topp ci Franc Franc nangu laa jël yow jël ko mu wane topp ma si Franc de moom dafa juum topp mu nekk topp ma si Franc topp si Franc pour lan Franc rek day mbër ba may topp Franc Franc dafi def lu ma deful ba ma koy topp topp ma si Franc de moom dafa juum. moom dafa juum waaw nee nga topp ma si Franc déggoo ma de Franc promoteur lii amateur yi ñoo wax sama combat moom mais man mosuma taxaw na Franc moom nee nga jël ko mi ngi lay dégg. ma sa wax te teg ñoom dañuy juum si communication. waaw xam dañuy gis gaal yi tëmbee barñi rek ñu ne barñi ñii dee nañ. waaw yow li oh. may topp dañu xaj si gaal. de. xaj bu sax ci bato bu man yàlla moo ma defal lu mu defalul mel na mbër fii. man ñëpp mu bëgg. mooy lan bu waa barñi toogoon ma ñëw stade day fees loolu la yàlla dogal. Quench du jamono ji non non du jamono ji na leer. moom moo ma raw sax. nga la raw nee nga moom moo ma raw sutu ma munu ma ko dara non moom moo ma raw. déggoo ma de xam nga day ñaan moom moo ma raw man damaa toll si ñaan chance mais tollu ma pour maye chance est-ce que comprends nga li ma. kan ngay ñaan chance. la dëgër laay ñaan chance. na. la dëgër kese laay ñaan chance. la diis de. ñaanuma keneen chance la dëgër rek laay ñaan. noo gisee grand combat bi jël kër sa. combat bu ne combat bu ne. dégg mooy daa waaw. ci bëre wala ci xeex. si lépp. ambiance si ci géew. noonu la deme combat bu ne jaajëf. jaajëf. kooku ça c'est mon ami Quench. jamaïcain. ñaanu ma la chance pour nga pour ñu pour ñu bëre. Lamine. nañ ma jël direct ma wax ak yi. waaw waaw waaw di wax jamaïcain ñu jël ma direct commence daa am lu mu wax nee na moom amul daa tollul ci may essence day ñaan sens moom sama morom la sama adversaire de taille la deful ci làmb lu ma ci deful dama koy ñaan pour mu ñëw ñu bëre ngir yàlla ndax moom mbëri yi nekk ci làmb ji Quench moo ci dàq ut yoon ci mbër yi fi nekk yëpp te mën nañ ni cinq ans yi weesu jàpp fi mbër def fi loo xamante ne nit ñi dañ ciy bàyyi xel te boobu ba léegi mu ngi fi di taamu moromam buñ ko jox muy moytu maag moom lamb ju jaaru la dama koo wax pour mu ñëw ñu bëree bu parewul pour bëreek moom du ma ko forcer yaa ngi may dégg mais biir par ñi laa la wax ñi fa nekkoon moom ba tax mu leen di tiitaroo xaaj bi yëpp jël nañ gaal gi dem te mbooloo moom la ko nit ñi doon bàyyi xel léegi maa ngi fii ci grand combat bi diggante Diène Kaïré ak Zarko ñoom findi man Malika dañ maa yónni yaa xam tima taxawaalu waruma ñii su may morom lañ nañ bàyyi seen tappale yi ak link yi ñu jël dugal ko ci làmb ci di def ay affaire yaa ma neex yow kon su ma la déggee général pare nga heure boo gisee avance suba da ngay bëri barki yeneen bi boo ma joxoon nii léegi-léegi ma bëre kon jeex na promoteur yi dégg nañ ko amateur yi dégg nañ ko yéen ñu doon safoo général Malika yëpp wér na mu ngi ci jàmm pare war na pour bëre aussi nañ ma jël direct ma nuyu sama gars yi bërki démb dafa am sama benn xarit Alsaan nekk Amérique dañuy waxtaan ñu nekk igri ba yaa ngi may dégg maa ngi nuyu Alsaan borom États-Unis mu ngi may seetaan ci direct bi dafa génnee xaalis bëri démb bërki démb may ma ko maak armée comprendre nga di nuyu waa igri ba yëpp di nuyu suma xarit yi ak sama gars yi aw ma seen fay di jël jërëjëf waaw waaw jaajëf see jaajëf temps bi baax na c'est bon c'est bon na non non c'est bon xaaral xaaral batterie yaa ngi ci buggar la maa sant ñëpp di gërëm ñëpp sama gars yi may àndal aw ma seen fay comprendre nga dañ may jàppale ak sama copain yi waa Bamba mafia général bi Malika yëmbal Boune Kër Massar Allou Ba Ñax montagne Mbeubeuss aw ma seen fay mention spéciale Talla Diop suñu grand frère amuñu fayam chaque jour mu ngi ñuy conseiller mu ñuy jàppale mu ngi ñuy taxaw mu ngi ñuy teg ci code Mbong Bay Diop ak waa garage ba yëpp ak sama gars yi nekk si diaspora bi aw ma seen fay vraiment maa ngi leen di sant ñoom ñëpp ñoom Edu aw ma seen fay comprendre nga ñoom Modou Kane surtout Modou Kane mention spéciale daal yi ma sol ci plateau bi moo ma ko jox sama gars yëpp nga jël daal yi Modou Kane moo ko jël xaalis seer jox ma ko sama gars yi bëgg naa leen quoi mention spéciale Pape Matar suma xarit ak waa Fatick waa Kaolack sama gaay yi may àndal ci làmb yëpp maa leen di bég ñëpp di seen waa juwaay yee jaajëf jërëjëf kooku mooy général bu Malika ba tey ñu del ci waat ak yéen ci programme bi Ibulaay production moo ñu fi woo diggante Sarko ak Diène Kaïré Laurent Ndiago ak Tafa Gueye 2 Lamine ak Père Pala kooku mooy doomu jàmm moo war a bëre léegi wala Franc mbër kooku mooy Franc mbër jóge ci combat Franc mbër a ngi noonu kooku mooy Franc mbër Ousseynou Laye dinañu Mbaye Diop depuis États-Unis Abdou Dramé Aliou Ly ma Abdou mon ami mon frère borom Lyon maa ngi lay ziar bu wér a wér borom Sénégal Ousseynou borom Ousseynou Laye production Ousseynou ñu ngi lay nuyu di la ziar waa jam maa ngi lay nuyu di la ziar jaajëf bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi Seydina Limaamu Laay alayhi salaam ñu ngi nuyu xalifa bi Baye Doudou Makhtar Seydina Mandione di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tànd bi di nuyu waa Cambérène yëpp di ziar sang yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar di wax ñu ngi gis ñaani baax a baax a baax a baax di nuyu suñu mbokk mboor mboor yëpp di nuyu waa Cambérène yëpp di nuyu waa Parcelles mais fan nga toll ci programme bi. waaw Palla euh, ñu ngi jëm ci le 17 février diggante Mbacke Faye ak Rëm. waaw am nañ date 17 février incha allah arène nationale Mbacke Faye Rëm. gis naa ngay nga nga nga monté combat yu ndaw yu neex neex a ay xale. waaw Lamine ñun ay amateur lañ moo tax. loolu daa mel ni Modou Anta tamit jàpp na ci. waaw ku mel ni Modou Anta ku mel ni Assise. waaw xam nga sëñ Modou sama jarbaat. Euh, gars yi dañ ciy jàpp staff bi daal bari nañ ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla. am nañ combat yoo xam ne nii buñ ko indee amateur dinañ xam ki tëgg amateur la. ndax Modou Anta sans frontière ak Souley Gaye dinañ ciy bëre. waaw. un Ziga dina ci bëre ak Alice. waaw. daam su da mën ma daal dina ci bëre ak ETDR. ETDR waaw. waa kii tamit dina ci bëre Lebu Ndoy ak Caatu Refan. Lebu Ndoy ak Caatu Refan dinañ ci bëre. am na yeneen combat aussi yoo xam ne nii. mu ngi koy mu ngi koy mu su xam naa ni balaa yàgg semaine bi dina dina indi. incha allah rabbi waaw. loolu am na solo kontaan nañ ci bu baax a baax Ousseynou Laye. léegi mbaa sponsor yaa ngi ñëw. waaw sponsor yi ñëwaguñ nag sponsor yi ñëwaguñ mais ñu ngi wootam autorité Cambérène yëpp ñu ñëw dugal ci seen loxo baax a baax ndax seen doom. waaw ak mboor mbor yi seen doom moo xewle seen jarbaat seen rak ñu ngi leen woo ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci bu baax a baax a baax a waaw noonu la. jaajëf merci beaucoup. ok. jërëjëf Ousseynou Laye. jërëjëf Ousseynou waaye nag. ñu ngi lay jaajëfal baax a baax. jamee kenn dama bëgg ñu waxtaan ci qualité Zarko père Ba la waxtaan ci qualité yi Diène Kaïré waaw waaw Diène Kaïré sànq commencé woon nga ci moom nga ne mbër gi da koo donn da donn waaye ba mu ko donnee ba pare donn gi kese daa doyul dafa dem jàngi ko jàng ko ba mu ko jàngee ba pare daf koo jëfe mbër nag bu fi indi benn problème da ngaa daanu kooku kan la Balla 3 waaw lu mu ba bàyyi ko mu ñëw moom kese moom kese na toog noonu sawet père toogal noonu voilà lan la bëgg. laaj ko ko mu ngi noonu moom Balla 3 moo bëre sànq. mais looy wut moo rëg rëg. waaw kay ñëpp gis nañu ak làmb ji ni mu demee. lan nga gis. ko yër ni mu dee kat appi. non 3 appi la def. Mohamed Mohamed indi leen ko ko mu gis ko Mohamed gis fii. waaw yow nga bëre nga bëre bu rëy. nga jàmbaar. bëre kat nga yow nga bëre bi nga daanoo amateur yëpp la doon tàccu. bien samay morom ñoo ma nangu te jël il faut ma jël risque jël punkal. bu defati loolu. mais Mama Lamine laa jógee contre Mama Lamine looloo ma daloon daan Aliou Farfat mëri mel ne dañoo gis dëmm dama daw normal ma jël Mama Lamine ñàkk. xoola xoola xoola action bi xoolal yernu nga samp na benn ñaar ñett. tànk baa nga ca kaw. bàyyil mu dem bàyyil mu dem. gis nga foofu la jeexee. daa jógaat gis nga daa yow mbës yow champion nga. di jël poids lourd dama aa dama dama cee nga ne ko. na opère. dama cee daj coono. bàyyil di jël poids lourd. bala bàyyil de risque yi bàyyil di jël. risque poids jël. say morom. léegi ñan lañ may jox ñan may jox. say morom. Laurent ngi nii si. oh Laurent ngi noonu waaw. Laurent daa liw. wala lan. liw taala leen ko furna. liw. yow ngay bëre. Lamine préparé li wax dafa am solo. waaw. Balla Toura nee na ay moromam ñoo ko nangul jël moo tax muy risque di jël ay poids lourd na bàyyi risque waaw. père il faut père wax ak moom. waaw père. père wax ak Balla Toura. waxal ak Balla Toura mu bàyyi jël. maa ngi lay nuyu. nan nga gisee combat bi léegi. waaw ànd ak sama mbokk rek liggéey. yàlla moo ñëw maa ngi koy bu baax a baax a baax a baax. damaa dégg ni da nga amoon poids lourd mu daan la nga ñëwaat jël poids lourd. lan moo la neex ci di jël poids lourd yi. damay dugg damay damay dem adresse Senghor wala ma dem àll ba ñu ko opposite leen laa laan xam nga règlement bi ci lutte avec frappe dafa wax ni mbër yi waruñu ëppante lu weesu 15 kilos loolu la règlement bi wax nan nga def bay bëre poids lourd bu la lu mat 15 ëpp 15 kilos. père man yooyu noonu kii ma ko soo demee àll ba da ngay da bu dem lourd. xam nga àll ba amul règlement règlement bi Dakar lay am. gars yi ñëw xam nañu bu baax. leer laa lay léegi nag léegi nag léegi nag lan ngay waajalaat. waa nekkaat ci samay entraînement rek. laa mu jeexul. xale bu ndaw laa barke Serigne Bamba Mbacké. billaahi wallaahi tallaahi xale bu ndaw laa. dëkk Kër Moussa. juddoo Géejawaay waay Géejawaay nekk école Balla Gaye gars yi dañ cee war a mën a ñëw jàpp. ñi ngi rayante nag pour def lépp mais na suñu morom jël.